international ak suñu différentes plateformes yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon euh, tey nag suñu invité de la rédaction euh, monsieur Bouna Keita la moom responsable politique euh, APR la nekk maire sortant de Dialembéré di commune bu nekk fële ca Kolda nekk itam membre bu Elan des maires sortants bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak moom ñu fas yéene waxtaan li nga xam ne mooy situation nationale wante itam. Euh, élan boobu nga xam ne euh, ca bokk te mu ëmb kon ay mair yoo xam ne comme ni ñu leen ko waxee yu bokkoon ci Benno euh, Bokk Yaakaar lañ balaa ñu sori rek kon ñu jox ko kàddu gi mu nuyoonteeg ñi nga xam ne ñooy bokk internet yi. jërëjëf mon cher Koumba Ndofène Diouf maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu suñu télé téléspectateurs yi suñu internautes yi ñuy Sénégal yi di leen gërëm di leen sant di remercier. ci invitation bi euh, ñëw fii ci ci ci ci ah. mhm. euh, pour ñëw nuyu leen waxtaan ak yéen ci waxtaan nag lépp di am déggoo bi a gën a leeral euh, li xew ci réew mi. Mhm. man nag ci Elan laa bokk mooy maire sortant bu Benno Bokk Yaakaar nekkoon maire bu Jalam bi rek ci élection locale yi mhm. laa wàcc mais taxul maire ba xaru loolu laa doon wax sànq ñun maire yi sortant du Benno euh, meroon nañu nag waaye nanguwuñu maire ba xam. loolu waral nag ñu ñëw ba fii. Ah. bëgg a waxtaan ak yéen leeralal leen ah. lan mooy élan fan fu ñu jëm tamit. Hmm. lan la ñu bëgg a def. Hmm. waaw xam naa lu ko jiitu sax dañuy euh, waxtaan rek lu mënul ñàkk muy situation national hmm. euh, fi nekk nii gis nañ ne dund gi njëg yi na wante itam mbënd mi ñëwaat tegu ci ba sax am ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen euh, bakkan an na nga gisee situation boobu. voilà loolu naqari la euh, maanaam pluie diluvienne yi taw yu bari ndox mu bari mi moom wax dëgg yàlla metti na si benn benn bakkan rotee rek c'est grave euh, à plus forte raison estimant des morts qui sont dénombrés. Mhm. ñu ngi ci massaw bi leen jaalee di jaale famille président Macky Sall sax ca Màkka gële la jaale Sénégalais yi jaale famille yi Euh, dalal seen xel ne leen état bi dina leen jàppale te lool da koy yokk rek parce que depuis ñu déclenché plan Orsec ci bële taw yële taw euh, ñu ngi ko doon def léegi nag il faut ñu yokkaat ko te président wax na joxe naa ay ay instructions pour que le plan Orsec soit amplifié donc ñu ngi leen di jaale di massaw waaye tamit euh, ku mën a fen il faut ñu wax ci mooy zone non édificante maanaam béréb yoo xam ni waruñ ci woon tabax parce que suuf si nanguwu ko wala fan lañu ay béréb yoo xam ni par exemple mooy euh, zone de captage zone de captage euh, c'est des eaux c'est une zone de captage des eaux fluviales pluviales pardon maanaam ndox mi doon taw mi su ñëwee fa la zone de captage ndox mi waroon dem malheureusement on a fait autre chose on en a fait autre chose donc aussi il faut dire que y a la responsabilité des concitoyens parfois dans ce qui nous arrive donc mais l'État étant une continuité là état continuité la Macky Sall wax na ci démb sax mooy ñu ngi tabax foo xam ne ñu woon tabax loolu tamit gën naa yokk jafe-jafe yi waxuma looloo indi jafe-jafe mais gën naa jafe-jafe yi ensuite mooy euh, plan Jaxaay euh, du temps de maître Abdoulaye Wade euh, ensuite a été on a pris le relais avec le plan décennal de lutte contre les inondations il des efforts qui ont été faits jéego yu bari def nañ ko mais des na état mooy loolu dañuy seetaat gën a yokk liggéey bi pour que sénégalais yi am ci euh, seen gis seen bopp donc ah, loolu mooy euh, problème inondation problème mu jeex la actuellement euh, ça s'appelle le réchauffement climatique parce que actuellement pays ba réew mi ñu wax Pays-Bas fi ma gis àll nekk bi dafa am sécheresse foo ngeen xam ko heure bi Pays-Bas dafa am ay zone dafa wow parce que changement climatique am na foo xam ne nag ndox mi dafa bare su baree indi problème su manqué tamit indi problème loolooy problème mu ndox mbirum yàlla su baree mu indi problème su manqué mu indi problème donc nañu muñ rek te wóor na ma ni président Macky Sall ci jéego yooyu la nekk euh, malheureusement sooy tabax miir euh, nit ñëw woddal miir bi nga nar a reprendre tabax miir bi xëy na am na ñuy gisee ni yow defoo dara parce que ndox bi tax du xaar euh, action état ndox bi su ñëwee day ñëw. malheureusement day indi yeneen dégâts on reprend mais on a l'impression que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. est-ce que nekkul ne tey yaakaaroon ne seen politique d'assainissement euh, war nañ koo xoolaat ndax même situation bi mooy répété wu tey par exemple yenn zones yi da ngay gis ne mën naa jël par exemple gox ba ma dëkk Grand Yoff bi ma nekkee xale ba léegi même situation bi laay dund plus de vingt ans damay gis ne saa yu nawet ñëwee même problème bi mooy amaat mm-hmm. alors da ngay dégg ñu ne nguur gi def nañ ay temps de milliards ci xaalis nañ temps est-ce que nekkul kon politique d'assainissement ñu teg moom am na loo fàtte wax mooy il y a vingt ans tu avais quel âge il vingt ans la démographie ñaata la ñu woon Grand Yoff il vingt ans tabax yi fan lañ nekkoon Grand Yoff donc plus ñuy avancer démographie bi di yokku plus ñuy avancer ñu ngi tabax. mais plus ñu gën a war état war gën a mën a mais mais bien sûr l'État est de le faire depuis le plan Jaxaay mais il faut reconnaître que dama ne am na fu ñuy tabax. am na ay endroit yoo xam ne waruñu foon tabax ndox su ñëwee force day am fu jaar te dañ ko dañ leen defaroon ay yoon yoonu ndox dafa am deuxièmement Dakar ce que les gens aussi oublient le plan d'occupation des sols de Dakar il est où si suuf fi ñu nekk nii suuf si li ñu gas tubaab yi li ñu bàyyil lu ñu tabax le plan d'occupation des sols si le maîtrises pas bien forcément avec les constructions on construit là où on doit pas construire ou parfois, comme je dis toujours, il y a toujours des spéculateurs qui trouvent moyen à s'infiltrer, à passer entre les mailles du filet. Ce qui fait que, li ma wax ne mooy état du Sénégal avec le plan décennal de lutte contre les inondations def na ay jéego bari milliards xam nañ ko doyul parce que gis nañu mais tamit il faut ñu changer suñu jikko yi. jikko l'occupation des sols dans la région de Dakar pose un problème les zones non les zones ñun ñoo xam ne day taw. ndox bi war a jaar waruñu woon tabax. responsabilités donc sont partagées. bu la ah, déggee citoyenneté wees citoyenneté ak population. c'est un devoir citoyen que de dire il faut laisser la place à l'eau qui vient aux eaux pluviales il faut laisser la place. Imaginons, il y a certaines zones pour l'intervention des pompiers. C'est un problème. Parfois, les gens meurent, pas parce que l'intervention des pompiers n'a pas eu mais parce que l'accès aux sinistres facteur bloquant. Et, euh, voilà, parce que les constructions, parce qu'il y a eu des constructions, il y a eu des aménagements qui ne, sont pas adaptés, qui mm. ne pas aux normes. Donc, je ne dis pas que l'État, l'État doit continuer à faire des gros efforts. état bi war na jàppale nit ñi mais tamit foofu nit ñi population bi et puis en, euh, tout récemment les caniveaux qui étaient bouchés euh, par la main de l'homme par la main du citoyen sénégalais te ku ñu l'eau vient et l'eau ne peut pas passer parce qu'on a bouché les canaux. Et c'est la main du Sénégalais lambda qui l'a fait. Donc, on ne peut pas aussi tout accuser euh, l'État. Quoique, il y a une continuité. Diego, une présidente DEF, depuis le plan hors sec, nous commençons peut-être, nous avons continué, mais nous avons fait il faut nous dire c'est un comportement citoyen euh, dëkk bi ñoo ko bokk suuf si ñoo ko bokk armée yi ñoo ko bokk tali yi ñoo ko bokk kenn moomu fi mais kenn ñooy tabax naka su dul noonu bloqué quartier lëmm kenn du ko mën wax. Euh, monsieur Keita euh, beneen euh, mbir mi mooy dundu gu cher gi loolu tam duñu nekk ñu waxtaan ci mu nekk nii sénégalais sonn nañ mm-hmm. ñu ngi yuuxu ñu ngi jooy loolu itam ban gis-gis nga ci am. waaw sénégalais yi ñun ñëpp a si tous les sénégalais sont fatigués parce que soo fatigué wul physiquement nga fatigué moralement parce que situation bi ñuy dund c'est inédit mais il faut d'abord dire que. l'État du Sénégal a pris des dispositions ñuy tëtee ces dispositions dinaa ci ñëw ñuy tëtee ces dispositions duñ ci toll euh, bi euh, xam nañ ni que euh, l'exemple du de, de l'oignon on viendra sur le cas de l'oignon mais ce qui se passe aujourd'hui conjonction de facteurs la ay ay ay ay ay ay situation benn Covid bi ci Covid la ñu génn te jeexawul deuxièmement fermoon tëjoon nañu frontière Troisièmement, on a un problème avec la guerre russo-ukrainienne. Sénégalais yi ci guerre bi lañ xam ni urée bi engrais bi euh, céréales yi Ukraine la doon jógee wala euh, Russie guerre su amee fi ñu koy jëlee ñoom seen bopp lañ tal le petit donc ce qui fait que non denrées nos céréales nos fertilisants ont été bloqués euh, dans dans à cause de cette guerre. président ni mu def mooy dafa jël ñaari jéego benn mu jàppale askan wi yokk na salaire yokk na salaire retraité yi yokk na salaire enseignant yi te dimbale nañ njaboot cash transfert yaa ngi fi fii ba Janambére fi ba Janamalaay état bi def action sur la population. cash transfert yooyu lu yàggul dara am na ñu doon jàmbat ne ba waaw mais am na ñu am. problème de disponibilité dina continuer mais il faut ñu tudd ko président def na ko donc mu def loolu yokkaat bloqué prix hydrocarbure moo tax essence bi yokk parce que essence bi ci camion yi essence la ñuy jël transporter ceeb bi nara dem jàll malaari jalam benn soo yokkee essence bi ñoom ñu yokk seen prix dinañu wax ci yokk prix bi donc ce qui fait que blocage des prix du carburant le verrou le président l'a bloqué parce que ils savaient que le, le, le, transport, le prix du carburant jouait, impactait très fort sur la, le, le, transport des marchandises dans le pays. et, nous et vous. le président a joué, a activé ce levier. Beneen levier bi président activé mooy euh, président dem na négocier céréales yi en Russie donc en tant que président de l'Union africaine le président a fait des démarches pour pour nous aider à bénéficier de ces céréales Ce qui fait que, Bilol on a augmenté les salaires des, des, des, gens. On a appuyé les couches vulnérables. On a bloqué le prix de l'énergie. Mais c'était pour anticiper sur la situation actuelle. Si nous développons la situation, mais donc, bien Légui, comme, comme au Sénégal, Djendal Djaï, économie de marché. Alors, Kouy Djaï, soit, si vous avez une ligne Djaï, du coup, du coup, wala mu bañ ko jaay wala mu yokk prix looloo ñu dal boutiquier bi nag ba jalambe rek su jëndee saaku ceeb ñëw ba nga bëgg koo jënd moom yenu na ko jëlee ko Kolda indi ko jalambe bëgg ko jaay da ci yokk ba mu gis ci bopp loolu mooy spéculation spéculation bi nag du état spéculation du état. mais état moo war a contrôler. mais bien sûr mais quand dans une économie de marché tu ne peux pas contrôler là tu ne peux de temps en temps réguler. On ne peut pas passer, l'État ne peut pas, dans une économie de marché, réguler ça. Il faut que nous ayons des barrières, les, les denrées de première nécessité nous bloquent. Et si nous ne pouvons contrôler. Ce qui fait que il y a une spéculation. Mais les moyens, le président, là où il a activé les deux leviers, c'était pour atténuer le, le le coût euh, des denrées, le coût euh, des, des, des, produits de première nécessité. Ce qui fait que situation venue dans les heureusement que président def de moom xam na ko. Ah, doyul parce que njëg yi moom mu ngi cher. waaw doyul te nit ñaa ngi jooy. mais il faut que tamit léegi dafa am benn travail de contrôle ak suivi boo xam ne war nañ ko def defuñu ko ba kon ku nekk di jaay lu ko neex. non euh, dinaa la tontu ci lool mais dama bëgg a wax mooy d'abord il faut que ñu nangu ni euh, situation bi ñu dal nii su état interview woon dina doon gën a métti. Ah. il faut qu'on le reconnaisse ça au moins au moins que l'état a fait des. quelque chose pour atténuer malheureusement doyul parce que les gens ne le sentent pas mais je vous dis vous et moi ci quartier bi nga dem ci quartier bi nga ni dañ boutiquier bi def lu ko neex yow yaa dëkk ak bi boutiquier bi def lu ko neex nga te ci beneen euh, tali bi beneen boutiquier def lu ko neex l'État doit effectivement le ministère du commerce a un travail à faire mais nous aussi nous devons comprendre que boutiquier bi ëppal bi muy ëppal c'est parce que on ne Euh, le marché de l'offre et la demande ceeb manqué na suñu yaay yi ñooy wax ceeb manqué na rek daawal jënd ci boutique naar bi balaa mu jeex nga ñëw boutique naar bi ne la ceeb jeex nga dem jëndee ko feneen cinq cent francs plus cher pour dire que l'État ak ministère du commerce effectivement war na def contrôle économique mais contrôle économique day fekk tamit situation bi mel woon nii parce que d'abord rareté euh, ñàkk bi ñàkk euh, dund bu ñu mooy produit yi ñoo raaroon rareté boobu bloqué fii bloqué fee benn ñaareel bi li desoon na spéculation mooy la borom ceeb bi di dese juróomi saaku ceeb xam ni ceeb amatul mu yokk prix mu yokk jóg loolu am na loolu tamit te tegu ba fenn te tegu ko fenn buñ ko teg ci kaw état nag spéculateur bi dem def ko jalambere jaay foofu saaku ceeb naka su dul noonu tegu ko fenn mais def na moom l'état li mu mën a def mu gën a gaaw mooy mu protéger askan wi mooy yokk pouvoir d'achat pouvoir d'achat mooy maanaam euh, euh, suñu yaay yi jël seen panier marché dem euh, xaalis bi ñu ko jox soo ko joxee dix mu dem jënd lu bare mooy son pouvoir d'achat est élevé et amélioré mais soo ñëwee nga naan ah, sama dix mille ma dem de indiwuma fi dara mooy sa pouvoir d'achat dafa baisse donc l'état li mu war a def mooy protéger les ménages surtout les ménages vulnérables mmh. parce que li ñuy wax yëpp am na ñoo xam ni amuñu xëy amuñu gont ñoom tamit dañuy lekk dañuy reer dañuy naan am nañ kër fay ndox fay électricité donc ñooñu les pouvoirs d'achat des ménages vulnérables en priorité wàcc ci ñi nga xam ni am nañu salaire am nañu retraite n'est-ce pas waaw mmh. surtout la jeunesse donc il faut appeler un chat un chat l'État est la pour protéger aider accompagner les populations surtout le plus les les plus vulnérables loolu moo tax nag euh, président def li mu def mais yéen ñaa ngi imaginer euh, euh, essence bi si yokku woon nga nar a jëlee ceeb port yóbbu ko Jalambeer camion ceeb non seulement ceeb bi dafa raar prix yi ñu ngi yokk mais essence bi yokk xam nga ni dafa naroon encore compliqué donc pour que ñëpp mën cee jot on bloque le prix des hydrocarbures ça ji ko bu bëri la un autre point bi ma doon wax sànq mhm. mooy suñu produit yi yu bëri dollar lañ koy fay te xam nañ dollar ak euro xam nañu euro ak fan loolu tamit bokk nañ ci yokk njëg mi suñu produit yu bëri dollar lañ koy liggéey dollar le dollar est arrimé à l'euro l'euro est arrimé a dollar et le CFA est arrimé à l'euro mhm. donc wecc boobu tamit am na lu mu ci yokk ah conséquence économique donc ce que je dis en conclusion sur ce plan là li may wax mooy pour yeggali pour daaneel état bi def na jéego yu bari ñu ko def na ko war na ko continuer def Macky Sall xam na ko te pare na ko def merci. Euh, bu fekkee lu jëm ci soble si dafa mel ni dañ cee gën a ëppal euh, gis nañ ay prix yoo xam ne mën mel ne daa am ne da nga ne moo ko waral euh, soble si spécialement wala. non soble si man li ma ci xam mooy euh, am na déjà différence entre soble bi ñuy importé a soble suñu soble soble Sénégal soble mbay waaw soble mel ni bële du soble mbay bon lépp soble soble oh, mbay waaw soble mbay bi waaw suñu soble mooy soble mbay prix soble importé imp day subir conséquence li ma wax transport bi rareté bi indi ko spéculation ñu denc ko ba ñi soxla ko heure màggal ñu naan soble euh, soble nu ñu koy tuddee sax soble bu dul soble mbay mi soble soble soble waaw soble euh, euh, étranger mais soble boobu suñu suñu suñu spéculateur bi dencee soble ba xaar ba xew jot te ñit ñi soble boobu la ñu gën a bëgg mais suñu moytu mu am spéculation deuxièmement suñu soble mais consommer local lii moo ñu dal ak Ukraine céréales suñu produit yi ñu dem di ko jëlee fu sore bu boobaa su ñëwee cher mais suñu la cooyee si soble mbay nga ni bii du doy wala bii saful bii deful dara ensuite loolu problème du soble mooy mais su naree nag suñu soble am problème transport approvisionnement sur le marché soble bële jógee na port dugg na ci boutique ñi ñi gën a soxla bii mais je la marché mooy li li am ngay jënd te li am soo soo naree jënd te mu cher nga ni dafa cher donc je dis que consommer local bi moo ñu ko doon ñu dimbale pour que suñu euh, njëg yi wàññeeku suñu dund yomb mais dans le panier de la ménagère sénégalaise beaucoup de produits comme marchands sont importés demal léegi nga dem jëndi marché nga ñëw nga teg loo fi teg ma ne la nii dañ ko importé parce que waaw donc il faut tamit suñu habitude yi association bu mettee ni suñu si yi tamit il faut ñu seetaat ah, mais dinaa la waxal leen ne tamit tamaate bi tamaate bi buy jëlee buy jógee xaw ma fen fan les tomates mm-hmm. mais suñu tomate nag euh, euh, kii bi mboq bi mais on a on est capable de cultiver et de consommer local avec le pour pouvoir tendre à une autosuffisance alimentaire sans compter euh, on on en parlera sur l'agriculture lan la ci war a président war a yokk wax nañ ko ko dinaa ko waxaat tey lan la ci war a yokk pour que ñu gaaw am tendre vers l'autosuffisance alimentaire parce que heure bi tey jii la gën a xam lan mooy autosuffisance alimentaire suñu teeloon yëg lii xëy na du ñu dépendre ci Ukraine dépendre ci Russie mm-hmm. voilà euh, monsieur Koita euh, xanaa rek euh, kon bi ñu jógee si loolu dañuy ñëwaat si li xam ne moom mooy élan loolu bokk na si li gën a junj suñu waxtaanu tey bi mbirum politique tey nga nekk ci membre élan dafa dama lay laaj lan moo waral élan ngeen taxawal ko ñun kuréel bi ñu tuddee ENA hmm. dafa yomb dañ jóge ci élection locale mu metti lool ci ñun hmm. ñun ñëpp ñu perte suñu mandat am na ñu amoon benn mandat sept ans am na ñu ko amoon ñaar am na ñu amoon ñett am na amoon ñeent euh, suñu doyen alelo mooy doyen moo ñu ëpp ci expérience ci ay mandat ñun ñëpp ñu perte suñu mandat euh, ci mois de janvier hmm. cent soixante maires perte mandat sur cinq cent cinquante sept maires. ay maires yu Benno Bokk xam nga ni loolu ah, c'est important. Mm-hmm. Euh, bare na bare wul barewul parce que à peu près trente pour cent li ko li ko tax am trente pour cent mooy vingt six maires moo manqué suñu amoon cent euh, quatre vingt six maires sortant on aurait eu les trente pour cent imaginez. trente pour cent du Sénégal. du Sénégal donc à cent soixante c'est important. le, le, le, le, nombre est important, le chiffre est important, et on sait que 160 si chaque maire a 1000 électeurs, on a facilement les 160 000 électeurs, en moyenne. Plancher, hypothèse basse, hypothèse haute, on met 2000 électeurs, on a Donc, c'est ce qu'on appelle la base affective d'un maire sortant. base affective bien sortant jéego yu mu def man Sokone Jalambere Sokone euh, gosaas nga dem Judubu nga dem Ziguinchor nga dem Kolda maire sortant yooyu mais am na ñu def en sept ans estimant ñi fa def quatre cinq mandats ñooñu seen gox goxaat yi dañ leen bëgg seen vol lañ leen def donc ñooñu il faut ñu réfléchir ñu maire ñu woowante ñu dajaloo ñu booloo ñu waxtaan suñu biir ñu créer élan pour donc kuréel boobu ñu tuddee ko élan wutal ko tur tur bu gàtt pour que mu gaaw nit ñi gaaw retenir kuréel boobu moo créer moo dajale cent soixante maires cinq juillet euh, deux mille vingt deux on était cent soixante maires téeméer ak juróom fukk naka la ñu téeméer ak juróom benn fukki maire ah. si Sénégal ñu ne ñun duñu maire ba li xew xew na ba pare mi ngi suñu gannaaw léegi naka la ñuy def pour li ci kanam bañ ñoo raw maanaam mooy élection législative bi fi am ñu toog waxtaan ak président mu recevoir ñu wax wax ak moom nangu que on constitue ñun ay maire base affective yore ay électeurs ci ay jigéen ci ay góor ci ay mag ci ay ndaw mais ñu jàppale président pour gagner élection yi. balaa ñuy sori élan baatu élan ngeen choisir moom baatu élan mooy xam nga ku daan soo jógee da ngay xàcc mhm. nga départ sooy tiré tiré en général soo tegee sa ballon penalty da ngay. da ngay jël élan da ngay jël élan. Mhm. Euh, élan tamit benn mala la c'est un un animal mais l'un dans l'autre dañ ne élan mooy da ngay jël élan ci sa baaxaay gën ko yokk élan si sa engagement. gën koo yokk élan si sa fidélité gën koo yokk élan si sa euh, loyauté avec le président gën koo yokk moo tax ñu woowee ko élan et que kuréel boobu moo ànd ak président ci campagne bi def jéego ba ñu am suñu 83 députés métti na métti woon na lool parce que dama lay wax lenn fi mu jógee daf métti mais dañ ne ñun kilifa yi njiit yi dañu muñ suñ muñee muñ nangu dem wane ko ja dem Jalambi rek ne population mu ngi yéen parce que ñi ma jàppale dañu foogoon ni euh, maire maire bi bi bi ñu fal la ñuy jàppale donc si seen xel commencé woon na indi ay njuñ njaaj ñu dem leeral la am na foo xam ni yegg nañ fa ba gagné am na foo xam ni euh, c'était trop tard parce que nit ñi li xewoon janvier juillet janvier pardon oh, dañ ci local yi euh, fayonte bi rancœur yi maire yi ñoo taxoon loo ñoo tax nag lu bare mu dal ñu ci plus nga yokk ci nag investiture investiture législative am na foo xam ne euh, mooy loolu euh, mi ngi ci gannaaw mais am na foo xam ne mënoon nañ gën a defar pour que nit ñi ànd ci loolu bokk na mu yokk tamit beneen beneen thème de campagne mooy opposition li mu doon wax euh, opposition au troisième mandat et au au au à l'agenda gay donc C'est pas bon. Donc, l'opposition en a profité pour défendre des thèmes de campagne qui na rien à avec les Le, la, majorité a réglé des comptes internes qui, qui, sont devenus euh, très difficiles à gérer, ce qui nous a donné ce résultat effrité, de 82 députés. ñu liggéey ci liggéey boobu. ñu liggéey ci gagné bind président ne ko gagné nañu félicité ko ba pare rafetlu ko ko vraiment xel li bàyyi xel mat na gis nañ ko te nii lañu war a continuer suñu bëggee gëstuwaat suñu askan. gis nañ leen euh, ngeen di yëngu defal conférence presse ak ak yi ni mel ndax da ngeen euh, yaakaar ne dafa am lu des seen diggante ak njiitu réew mi lu leen defalul da ngeen am ngeen xaar ci moom. non njiitu réew mi li ñuy xaar moom mooy mu gën ñoo bàyyi xel bàyyi nañu xel nañu gën a bàyyi xel cent soixante mètres. nañu bàyyi xel ci ci biiroom daal na bind élan di fàttaliku élan xam naa ne liggéey bi mu yore dafa bari trop mais euh, président na bàyyi xel élan parce que ñii ñoo ko ji cent soixante maires depuis sept ans depuis douze ans yenn saa yi depuis quinze ans vingt ans suñ ne bàyyiwul ay góor lañu te mais cent soixante maires bàyyiwuñu ko au contraire dañ ko bëgg gën a jàppale nekk ci moom ànd ak moom ba fu moom fu mu bëgg a dem ñu ànd ak moom looloo waral may naan président na bàyyi xel élan na bàyyi xel élan euh, mu nemmeeku élan euh, ci élan am na ñu fa jàng ci élan am na ay baykat ci élan am na ay sàmmkat ci élan am na ay ay ay intellectuels yoo xam ni mën nañ ko jàppale xelal ko parce que xel matul lu ñuy wax ni yëpp xel matul loolu tax mu am ay conseillers donc il faut que suñu 160 maires yooyu président bàyyi leen xel te ñun am na lu ñu nar a def temps yi. dina la ko dinaa ci dinaa ci ñëw si si kanam mais am nañ perspective pour wax ak askan wi pour wax ak nit ñi mais balaa loolu il faut ñu restructurer wu parce que élan demoon na dem na ba am cent soixante maam léegi il faut ñu organiser wu def benn structure boo xam ne dafa dafa suuf maanaam kuréel ba pare euh, jébal ko président ne ko ah élan def na li waxaat président que léegi ñun ñu ngi si gannaaw pour jàppale la fépp foo xam ni am na ñu meroon ba woon ñu gannaaw mais 160 maires bu ne commune la c' est 160 communes donc Elan tey jii su bëggoon dem ci 160 communes yi en même temps mais c' est un maillage territorial du Sénégal entier donc loolu nañ ko bàyyi xel du benn dëkk chaque maire c' est une commune 160 maires 160 communes donc maillage boobu président ne ci jàpp bu baax parce que loolooy tax ñu dem. dellu waa askan wi balaa heure bi di jot wax askan wi askan wi ñibbi si waat dellu si kër ga parce que dañu suñ dem sorewul suñ dem sorewul un mois la rek suñ dem sorewul askan wi bañuñu Macky bañuñu Macky doone Kolda dafa bañ Macky ah doone Kolda dafa bañ Macky. est-ce que tey tey bu ñu gisee euh, réalité euh, élection yi est-ce que du euh, maire yéen maire seen kuréel cent soixante si li nga wax suñu askan yo suñu askan boobu moo leen wan ginnaaw est-ce que ngeen leen convaincre li nga yaakaar ba ngeen bëgg waaw ma la dara ku la jëkk ci néeg moo la xam fu la féete ñun maire def juróom-ñaari at moins d'un an moins la élection yi am kon dara électorat nee naa la affectif bi ñu yore bokkul a électorat de circonstance beaucoup l'électorat de contexte. Il y beaucoup de choses qui, sont, qui, ont, qui ont été liées au local. c'est la circonstance, c'est le contexte, c'est la conjoncture politique du moment. Ce qui fait que les ñun mairie suñ mënee dellu si suñu base wax ak mairie wax ak électeurs yi wax ak militants yi wax ak sympathisants Macky la léegi du buuna la ñuy wutal de du Coumba Ndoffène la ñuy wutal du euh, keneen la ñuy wutal assemblée nationale jeex na Macky la ñuy wutal ay nit pour ñu gën koo fësal te Elan mën na ci jàpp mën na ko def pendant que les maires sont en situation en poste ñii di liggéey seen gox goxaat ñu bàyyi leen ñu liggéey nest pas mais ñun maire sortant yi il faut mu ñu liggéey ci loolu ci massifier autour du président. dafa am taxawaay bu ngeen di xaar njiit réew mi am ko ci. waaw oui mooy gën a ko jàppale ñoo gën a bare ci gannaawam waaw massifier. ba xaar li mu bëgg suñu waxee li bëgg xam nga ba tey waxul lim mu bëgg wala yow wax na leen li bëgg. Eh, recevoir leen wala bu ñu leen waxtaan leen ci loolu. non non non waxtaanee mooy naka la def ba gañ lu ne dafa am jot lu ne dafa am étape mois de juillet mënoo dem di wax leneen lu dul gagné au législatif fa la ñuy yem moom kilifa da nga koy respecté tamit nañ dem liggéey pour gagné dem ne liggéey pour gagné ñu dem liggéey gagné léegi étape bi ci topp mooy Stellan dafay structuré wu am fu mu taxaw am fu mu ko taxaw. Mbadou Mbadou moom dafa jàpp ne comme que ñii daal euh, perte nañ te dëkkuloo gi la amatuñ doole boo xam ne daal tax na mu war a peut-être topp seen ginnaaw wala. déedéet président réfléchi wu doon de. ba tey xamoo luy base affective luy base de circonstance ah am na lu xew mais yi nekk en poste du ma leen fi ngañ mais nañ leen bàyyi liggéey. ci Benno maire yi nekk nekkal président actuellement en exercice nañ leen bàyyi ñu liggéey maire sortant yi nekkoon ak président depuis 2011 nañ leen jox ñu liggéey déggoo ma de parce que ñaari liggéey mooy waral massification maire en exercice continuer liggéeyam ak état loolooy dëgg maire sortant continuer liggéey ak Macky Sall loolooy dëgg du benn nit ki soo defee fii c'est la so addition moo moo gën soustraction. te loolu njiit réew moo ko mën a def ba ñaari maire yoo rapproché wu quoi. bien sûr su ko defee rek on on en reparle. loolu daal réel effectif sincère des responsables dans leur base euh, respective c'est c'est c'est notre salut. peut-être loolu mun na leen jox euh, dara ci euh, présidentielle 2024 bi ñu jëm donc nag troisième candidature moom mu ngi noonu. Eh. mais bëri na ci xaw ñun ñun dañ ne président na jàppale responsable ñu gën a delloo si xelu nit ñi militants yi sympathisants yi ñu nekk ci gox goxaat bu boobaa suñu demee ba def loolu ba mu pare président li mu bëgg moo mu bëgg bu dee troisième mandat la. li président li mu bëgg moo wax ñu ko. ma ne bu dee def leen troisième bëgg. ma ne président li mu bëgg moo wax ñu ko. ngeen ànd si moom. àndee ceeg moom mais pour l'instant wax bu ñu. même bu dee troisième mais daf daf ñu ne xaar leen dem leen liggéey dem indi nit ñi def nañ ko gagné na léegi massifier moo des massifier mooy dem jëli nit ñi du waxu ne du waxu Samba waxu Macky Sall la ñu wax te kenn bañu ko fi waaw kenn bañu ko fi am na ñu ko bañ parce que lu mu def ñu ne baax mais dafa ne majorité Sénégalais yi bañu ñu Macky Sall ah loolu seen wax la. waaw déedéet je je veux dire ñëpp ay responsable lañ. Ah. analyse situation actuelle da ngay xam ni bañu Macky Sall am na loo xam ne dañ ko war a rectifier ci rectification lañu jëm mais rectifier tamit ñi dem ba voté feneen fu dul seen ñi mais ñooñu il faut te loolu nee naa la exécutif locaux maire sortant et maire en exercice mën nañ ko def te maire en en exercice am nañu seen mission ba pare ñoom la ñu fal ñooñu nañ leen bàyyi ñu liggéey. maire sortant yi nga xam ne génn nañ ci loolu mais am expérience am base affective am vision am bilan ah. mais perte. élection mais perte élection mais ñëpp xam peut être peut être man voilà peut être perte élection boobu moo tax peut être euh, <laughs> doole bi ngeen amoon amatu leen. mais loolu loolu moo tax ma ne. gëdd bi ñu leen waroon jox joxatuñ leen ko. déedéet du noonu la demee de am na lu xewoon deux mille euh, élection janvier. Mhm. loolu duñ ci wax wax nañu lu bare. waxtaan nañ ci biir. mooy lan war nañ ko mën a xam mooy mooy mooy maanaam xiiroo beeg ŋaayoo. ok dans le benno. Euh, voilà euh, président waxoon nañ ko ba tey mi naan pour daa naagu daagu nga naagu nga daagu. ñu raw la loolu jàpp bokk na ci loo xam ni moo ñu perte loo ci région ci département yi ak commune mais tamit am na suñu xiiroo beeg ŋaayoo mooy maanaam ah mu munuñ jubóo président jox na la ndomb tàng teraanga bu dul jeex mais munu leen jubóo seen biir. ba pare seen xeex ngeen ex importé ko du moins exporté ko ci yeneen gox goxaat ce qui fait que soo bokkul ak Samba Demba mere la Samba mere soo bokkee ak Demba Samba mere la bu boobaa mu doon ay noon ci biir benn. ci biir donc loolu tamit bokk nañ mais def nañu analyse bi xam nañ fu mu jaar loolu loo tax ma ni la soreetuñu fu mu ne nii wutalu tuñu Demba wutalu tuñu ko ma dofee waaw waaw pare léegi ñun suñu problème massifié autour de Macky Sall moo ñu jox gëdd gi moo ñu bàyyi xel ñun mairie Macky Sall lañu tal su heure bi jotee dinañ jël suñu position ci li mu bëgg dégg nga moo tax nañ ñu ne bul yàkkamti ñu bëri na troisième mandat la bëgg de <laughs> nee nañ ñun xam nga lan ñu bëgg a wan ñeneen ñeneen daal démarche ko bëgg troisième ñun en tout cas élan élan capsule 2024 pour massifier autour de Macky Sall. capsule 2024 même pour massifier autour de Macky Sall. même s'il demande euh, même s'il veut une troisième candidature tonton boobu mais mais dama ne président moo ñu ne xaar leen ba heure bi jëm. ok moom ngeen man xam nga sama xarit la. xaar leen ba heure bi jot xaar ba heure bi jot en attendant heure bi jot ñun liggéey bi lan mooy jëli nit ñi delloo si xel nit léegi du kii la ñuy wutal du kenn la ñuy wutal fu mu ne ni état bi moo des au plus haut sommet te ñu déglu ko mais li ñu koy ñaan mooy mu bàyyi xel Elan parce que euh, lima ma lay wax ba tey rek cent soixante communes maillage national presque le tiers maire sortant am ay mandat am ay bilan depuis deux mille onze nekk ak moom ñooñu il faut mu sóoraale leen ci échiquier bi te président moo ko war moo ko war a def parce que yóbbante yi yónnante yi dafay yenn saa yi day wàññi ci fond de la chose je m'explique mm-hmm. euh, on a eu des commissaires pendant les élections euh, on n'a rien contre les commissaires mais l'information parfois n'a pas été complète aux yeux du président de mm-hmm. ce qui fait que yenn président liñ ko wax ah li am amoon na différence boo xam ne mu waral ni militants yi frustré maanaam ci investiture yi wax naa ko mhm. yi am na mu doon demee mu demee malheureusement comme ni ñu wax rek c'est trop tard. maintenant on ne regarde pas dans le rétroviseur. on on ce qui va on voit l'avenir du Sénégal on voit l'avenir de de parti et de la coalition moo tax ñu ne benno euh, élan ci benno pour que ñun ñi gën a bëri gën fas dellu seen xel te loolu tamit bokk na ci loolu lu ñaan président mu def ko ensuite euh, agriculture bi ñuy gis nii soo ma bàyyi soo mayee ma wax ci euh, waaw loolu ndax bu weesoo loolu bokk na ci yéen peut-être loo xam ne ay solution la ngeen di xalaat da cee bokk mbay mi. non mbay mi daf cee bokk parce que l'autre jour am na benn kuréel boo xam ne bu tudd chambre d'agriculture chambre d'agriculture mm-hmm. dafa am c'est une directive de l'UEMOA la chambre d'agriculture la chambre consulaire amuñu ko Sénégal dañu am chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture looloo am SIAD chambre de commerce d'industrie et d'agriculture léegi li ñu bëgg mooy président euh, génne agriculture bi def ko chambre consulaire pour que dans le maillage territorial ci gox gox bi sax suñu wax agriculture mbay mi bokk na ci napp mi bokk na ci ah jur gi bokk na ci agriculture élevage et pêche mhm. maillon bi manqué ci dispositif bi mooy kuréel boo xam ne ñëpp bokk nañ ci parce que intermédiaires yi lañuy bari léegi ñun ñu bëgg mooy monde rural bi ko potee mhm. mais moom li daal moo ñuy indil autosuffisance alimentaire bu Dakar ci gox goxaat la ñuy daan a dem mbay mhm. donc ñooñu la ñu gën a war a dooleel donc ñu gën leen jàppale avec la chambre d'agriculture autosuffisance alimentaire bu ñuy wax xëy na mu gën a gaaw parce que waxtaan dina am intermédiaire yu bëree du am jiw bi su ñëwee dañ ko fay waxtaanee naka la ñuy def pour yokk mbay mi foofu lañ koy waxtaanee sans compter état en ministère de l'agriculture ñu lëkkaloo pour euh, mbay mi jëm kanam loolu su weesoo man li ñu wax ni mooy euh, président nga jël ak ñoom dugg ci réew dugg ci réew mi jël yatam jël puso amoon njabootam ñu mu dajaloon ñu dajaloon ñu mu war a dóor yat na leen dóor yat fu mu war a def euh, wax neen juboo leen ngi mun juboo mu jël puso wëñ ñaw président loolu la war a def le temps qui nous reste pourquoi parce que ñu bare tamit bokk na ci loo xam ni seen xol neexu ci mooy naagu bi rek mm-hmm. famille bi njaboot bi bari na lool macha allah mais mënu leen fexe ba jubóo fu ngeen ko fekk client mini militants yi nekkoon 2011 2012 2013 ba 2022 di toog di seetaan mais su i banque seen loxo loolu tamit bokk nañ ci. parce que dañoo gisul seen bopp ci mbir mi. parce que non du gisul seen bopp rek mais ñi ñi feet ñi ñi jiitu ñi jiite jubóowuñu bëgg ñoo indil bëgg ñoo lor bëgg ñu lortal nga def nag doo dem sa bàyyi leen ñu xuloo waaw loolu tamit bokk nañ ci lu lu ñu war a saafaraal moo tax ma ne la président na jël yatam waxin la rek borom kër am na nooy lijjanti tamit sa njaboot mais moom xam na ñi juboo ñi mënte juboo ak ñi xam ne ñu ngi toog di seetaan loolu waral ma ne président surprendre tournée tournée bi nii dem toog ak njabootam waxante ñoom menuisier électricien ñii 2011 ñii 2012 ñii 2013 mais président dina xam lu xew dina gën a xam lu xew xam na lu gën xam lu xew Kolda dina lu tax lii amuñu ko lu tax lii ñu ñax nit ñi dañ koy wax carrément te xam naa ni aay na ci politicien la président la nii la def ba gañ gañ donc il faut mu wóoraat Sénégal mu dem ci nit ñi waxtaan ak nit moom moom mii mu toog wax nit ñi waaw intermédiaire waxuma bu mu am mais gën mu wàññi intermédiaire parce que nit ñi moom la ñu soxla te soriwutul ñi fi mer ñëpp ñu Macky Sall ñi fi voté contre Benno yi merewuñu Macky Sall maanaam oh, mais système bi am na nu mu demee ñu gisuñu seen bopp wala am na nu mu demee fayontu bi bare fayontu bi bare kii def na ma ko local ma ñëw def la ko euh, législative ñu euh, ma législative man tam ma mer ma ñëw ma ne ma voteel ki ñu jël et cetera détails yooyu rek moo ñu moo ñu moo ñu sonal. ndax loolu tamit xanaa bokk na kon ci résultat yi ngeen am euh, législative ndax législative ak lu ñu mënti wax it euh, xaw na jege defet mu ngeen jigéen nombre de députés yi ngeen ñëwoon ba si quatre-vingt-deux députés Pape Diop mooy le ba tax mu mot quatre-vingt-trois est-ce que kon ba léegi ah, loolu bokk na ci feeñ itam ci législative bi. non loolu bokk na ci lu ñu jox victoire bu tuuti étriqué bu xat dafa am mais gaañu ne mais réponse bi ma la wax sànq mooy. taux de participation 50 pour cent taux d' abstention 53 pour cent n' est ce pas. Mm-hmm. bokk na ci usure bokk na ci xiiro béngaay bi bokk na ci te li ma wax tamit mauvais thème yu ñu indi ci débat bi bokk na ci looloo waral lépp soo ko jax soo ko boolee mais di nga xam ne lii ñoo waral suñu 82 députés vitesse euh, victoire étriquée donc moo tax ma ni pour ñu delluwaat ci il faut président. débat participatif bi ma ko suggéré moom mii ci boppam mu ñëw wax nit te mën na ko te su defee yaakaar naa ne Sénégal yi duñ ko bàyyi parce que du moom lañ mere Kolda munoo ma ne Kolda mais Macky Sall lañ mere lu ne am na Kolda waaw lu ne am na Kolda def na lépp Kolda waaw ba dernièrement aéroport aéroport Kolda bi lañ lañ nekk di tabax waaw xanaa kay mu defal ñu lan la ñu war a defal. mu indi ñu ay bateau mais pourtant à commune bi versé na ko département bi moo ñëw euh, jàppale pour qu'on ait euh, les deux députés de Kolda et pourtant c'est à Kolda que la ñu nommé ndombu tànk président yëpp commune Kolda la ñu donc tamit loolu bokk na ci euh, si sama gis-gis si suñu gis-gis bokk na ci li ñu génnee enseignement jàngat mooy na toog wax la njabootam wax lañ njabootam ñu ñëpp njaboot ci njaboot bi lañ bokk man mii ñeneen ñeneen da wax su ngeen mënul déggoo wax leen waaw déggoo leen déggoo leen déggoo leen mënut mënatu leen déggoo te ñeneen ñu taxaw di leen seetaan yeneen njaboot ñu taxaw di leen seetaan ñu def na waaw soo ci sa bopp doo banque sa loolu tamit bokk na ci lu ay jafe-jafe. Mm-hmm. Euh, monsieur Bouna Keita ah, damay laaj sama kàddu gu mujj si ah, waxtaan bi lan euh, suñu waxtaan mooy damay rappeler euh, bilan Macky Sall euh, ñi ko bañ nañu xam ne lii am na te xam nañ ko ñi ko bëgg xam nañ fukki poñ ak juróom-ñaar mais ñetti laa ci wax. ñett ci mooy le programme de modernisation des cités religieuses le programme de construction de réhabilitation des lieux de culte lu am na fi mhm. am na fi kay mhm. waaw loolu am na Sénégal autoroute pont autopont piste digue am na fi augmentation salaire enseignants yi retraités yi en général am na fi. waaw te tamit terewul yeneen jafe-jafe ngi tamit. non xiif euh, euh, man bilan bi laay waxuma li mu def. lépp ci bilan non waxuma li def yëpp euh, doy na maa njëkk wax na wax wax koom-koom mais li mu wax li mu def yëpp doyul mais am na lu mu def li mu def nag il faut ñu wax ko Sénégalais yi ñu dégg ko. commencé ci daara kër sëriñ si fu ne am na lu mu def Ila Touba mi ngi TER BRT mi ngi nii mi ngi koy def malgré les inondations ñu naan non tabax yi la ñoo indi inondation ñu ne tabax yi chantier yi ñoo indi inondation ci biir Dakar man du ma génie civil lenn xam naa ko mooy daaw am nañu inondation def nañ ci ay jéego doyul ren ñëw na ñu ngi ci def ay jéego doyul nañ ci gën a yokk jeex mais Dakar mënul xam na luy BRT euh, TER et cetera pont autopont autoroute Dakar milieu rural nag gox goxaat yi nag moo gën a fees ndox courant tari hôpital ambulance bourse familiale yokk panier de la ménagère def na ko école yi man ñu xam ne ñuy euh, abri provisoire mon cher abri provisoire mooy néegu néegu naka lañ koy waxee wala néegu ñax bi ñu doon tabax école yi Casamance bi dafa feesoon abri provisoire te yow xam nga abri provisoire au mois de mai taw na xale yi du ñu am euh, quantum horaire quantum horaire soo ko amul performance scolaire doo ko am waaw école CM collège lycée tabax nañ ko fi donc gox goxaat yi soo demee ci gox goxaat yi da ngay yéeme dorsal Kolda Vélingara yu vingt quatre heures sur vingt quatre bu jógee foofu euh, pont Marsassoum nga dem euh, Transgambie nga jógee foofu pont Kolda nga jógee foofu def ay pont def ay jéem mais nañ nangu ni waa ji liggéey na yokk nag budget commune yi budget commune xam nañu fi ñu ko fekkee quatre deux mille quatorze man maire laa woon pare foofu nga dem ci euh, nañ koy waxee les les les ambulances mais ambulance ñaa ngi paat mais am na am na ay ambulance yu paat loolu nañ ko wax mais ambulance nañ fi. ambulance amuñu ambulance suñu hôpital amuñu ambulance amul ambulance ñu transporté ko loolu chaque jour ñu dégg ko tamit. non mais waaw mais man de wax ambulance yaa ngi di joxe matul dëgg la am nañu paan dëgg la mais ambulance ñu ngi koy joxe te ambulance ci poste de santé bu amul tali dafay defal tali bi defal leen ambulance looloo xew ci dëkk bi nga jógee foofu nga dem ci mécanisation agriculture mais agriculture bi bi Macky Sall yore mais def na ay jéego. Mm. nee nañu pour ñu am autosuffisance alimentaire na yokk mécanisation pour ñu yokk surface à emblaver ñu yokk denrée bi ñu yokk euh, euh, urée bi yax engrais bi mais engrais bi suñ ko naree jëli urée bi nan euh, Russie wala kii Ukraine mais loolu tamit bokk na ci jafe-jafe mais mu ngi ciy jublu donc nañu ne bilan am na nga bañ ko nga bëgg ko bilan am na. kon lu bëri des na. waaw mais adduna bi nag entre nous amoon na li ñu fekk. mais neewoon nañu lu bari des na 2014 n'est-ce vingt 2022 am na lu ñu def ah lu bari des na le monde est ainsi fait aussi waaw kon mënuñu jeexal lépp waxuma loolu la ñu war a def mais dañu nangu ni am na bilan boo xam ne président bàyyi na ko surtout ki kër sëriñ si ah jumaa yi nga dem église Ziguinchor nga dem jumaa Kolda jamaa Kolda nga dem feneen nga dem feneen mais on amélioré les choses ont beaucoup évolué balaa may pare nag moo wax la ko am na lu ma bëggoon wax mooy euh, euh, desserte aérien ligne Dakar Ziguinchor mm-hmm. desserte maritime Dakar Ziguinchor fu ngeen ko rek président la aérienne deux avions par par par jour je crois et deux fois par semaine on le bateau qui va à ngeen ko le pont de Ndayane fu ngeen ko def à Foundiougne ah, wax leen ma rek non lépp ay mais dama mais dama def na. waaw ci geneen wet gi ci geneen wet gi bu fekkee loolu lépp mu ngi am comme nga ko mhm. euh, gis askan wi ñu si bëri ngi jooy. dundu cher geeg ñoo xam ne dañuy jàpp ne peut-être dafa am ay priorité yu ñu bàyyi def leneen. de xam nga tout est xam nga soo ne am na ay priorité yu ñu bàyyi bàyyi def leneen. ne jàpp loolu. waaw mais loolu mooy perception mooy avis nit ñi sa avis mooy loolu du priorité mais soo amul woon tali amul woon yoon amul hôpital amul. fooy fajoo soo feebaree amoo euh, avion booy demee Ziguinchor bateau bi dafa kale nit ñi mënuñu dem mënuñu dikk Ila Touba defuñu ko euh, jumaa yi tabaxuñu ko nga ne lan ñeneen ne priorité bi foofu la woon te defuñu ko. donc biir bu taxaw lu julli jumaa <laughs> waaw mais ba tey euh, gëm yàlla tamit yàlla nee na ubbi jumaa. lan la yàlla wax ci ko juma. waaw waaye nañ lekk ba pare yàlla ne bu bu bu waree julli sax lekk bi tege lekkal ba pare. waaw mais loolu wax ne lépp day ànd maanaam mooy c'est il faut le faire en même temps euh, ñu di wax lii du priorité lii yenn saa euh, ci politique lañ ne nga ñi moom dina am euh, donc mais je pense pas que lii président def lii ci jéego yi fukki jéego wax juróom-ñaar laa la def te fukki jéego ak ñaar yi du priorité yaa ngi wax lu la neex. da nga naan kay ci priorité yooyu ñooy yokk yeneen. priorité waaw dafa gën a am ñu gën a. priorité peut-être yenn mooy priorité des priorités. comme disait la d'accord mais je veux dire li ñu def ni ñun xam nañ ci ñun ñu dox dëkk ci gox goxaan xam nañ luy tali xam nañ luy courant xam nañ luy ndox xam nañ luy hôpital amuñu ko woon te léegi am nañu ko am am nañu ko amul mais dañ ciy yokk yaa ngi comprendre donc moo tax ma ne il faut aussi ñu déglu ñaan priorité priorité am na fooy taxaw du doon priorité si yow parce que opposition du nangu lii priorité la. ñoom li ñu deful wala lu ñu yeggagul la ñuy seet luñu ñuy actiser naan lii du priorité lii mooy li ñu def moom baax ñëwal jalanka rek nga seet di nga xam luy priorité mën nga def sa émission dak euh, naka la tudd seen info à jalambe t'auras l'eau l'électricité t'auras les ventilos et t'auras la salle te amul te te amul woon <laughs> alors sa commune Jalambeere alors tu vois donc euh, nañu yokk jéego yi euh, muñ te Sénégal man li ma ci xam mooy nga dem vote la kenn mënu ko wax ñaar politique bu muy jaral suñu dëkk bi ñu ko taal kenn gënu fi baax kenn xëy na li ngay def dañ ko gën a gis rek li may def suñ ko gisul su ma ko wanewul doo xam am na ñoo xam ne dañuy foog ñu ñoo gën a baax ñeneen ñoo gën a xam ñeneen ñi déedéet Sénégal ñun ñëpp a yem nous sommes tous d'égale dignité et nul n'est au-dessus de la loi aussi nañ ko wax te Sénégal ñun mais aussi de la au-dessus de la loi kenn gënu fa le monopole du cœur kenn ëppale fi kenn donc ñu ñaan yàlla mooy Sénégal dal kenn du fi taal dëkk loolu dinaa ko wax xale yi ndaw ñi président am na yokk xë ndaw ñi loolu nangu naa ko na yokk xëyu ndaw ñi te nee na yokk wax na ko ba ma waaw ci leen jëm yi mais buñ dugal seen xel fitna dugal seen xel réseaux sociaux di saagante bés bu ne saaga leen bés bu ne ñu menacé la jaru ko fi jaru ko fi Senghor fii la bàyyi réew mi. bu fekkee dafa am lu leen métti donte gaucher ma nag ay saaga mais bu fekkee am leen métti ba manière boobu rek lañ ko mën a. a expression hmm. waaw kon li leen métti ñu décortiquer ko xam li leen métti mais tamit ah du leen bàyyi ñuy menacé ni di ko saaga di ko menacé di ko saaga di ko menacé di ko menacé démocratie ak liberté d' expression boobu fan la am fan la ñu am fan la ñu gis li xew Sénégal nii fan la ñu ko dañu waxte dëgg jël réseaux sociaux naan dañuy lakk kër euh, Coumba Ndoffène Diouf xam ni xam ni yow yaa ko wax ci xam kër Coumba Ndoffène Diouf ñu bàyyi la bi wala jël réseaux sociaux naan tey damay ñëw jël si Coumba Ndoffène Diouf génnee ko bureau ah démocratie ak liberté d'expression moo waral loolu wala di saaga kilifa démocratie ak liberté d'expression mais nañ delloo si xel ñi ni démocratie oui liberté d'expression oui mais respect aussi des droits de l'homme respect droits de am ñëpp dañu am ay droit donc loolu tamit moo tax ma ne xale yi nañ leen nañu wax leneen lu dul taal dëkk bi lu dul saaga lu dul yàq xel nit ñi loolu dara jan ko fi parce que réew mi ñoo ko bokk benn bopp la kenn ko xar ñaar te man amu benn euh, adversité laa am ci politique amu benn anim euh, ennemi politique man mun a koy bi ñu fi toogee ba léegi waxuma ci sax rek laa wax te moom mooy sama mentor mm-hmm. li si des yëpp kenn du ma ko fi wax parce que dara jaral ma ko li ma jaral mooy jóge naa France ñëw naa liggéey Sénégal te li li ma jot a def du ma bàyyi ñu taal ko moo waral sama engagement politique parce que je suis venu servir et non pour me servir je suis venu servir et non pour me servir Sénégal donc je ne peux pas accepter je ne peux pas concevoir que l'action politique soit la violence les menaces et le l'irrespect vis-à-vis des institutions de la République waaw képp ku bokkul ak yow baaxuloo man rek ak ñi ma àndal loolu fu mu am képp ku bokkul ak yow baaxuloo baaxul foo ko wékk am naa droit wax li ma xam am naa droit bañ bokk ni nangul ma donc am na tax lu ma gis temps yi ci démb tey suba euh, benn euh, journal di nga ko ràññee sax parce que bind yi bind yu xonq la mm. muy ngañ président président bi ngi màkk ndeysaan di ñaanal Sénégal yi comme yow ni ngay ñaanal Sénégal te xam ñu ñaan kan mooy naan n'est-ce ah, journal bi ne pourquoi président di bisiwul di inondation yi amee barki démb di ko nga ñu ngañ yu métti kérosène bi nga utiliser sa bateau sa sa avion waroon nañ ko utiliser pour plan Orsec aw ma xaw ma looy def foofu et cetera et journal écrit en rouge sa benn euh, collègue imagine liberté d'expression et démocratie naan président lu muy def màkka mënoon na dellu si kérosène bu mu doon lakk ci avion bi mënoon na ko ah, en moom foofu la gisee ku nekk kon ni ko waxee sànq rek ku nangu lu gis-gisam donte comme donte wax ji en wax ji ñaawul daal da nga a wax sa xalaat rek euh, pour man waaw loolu laa wax mais xanaa ñun li nekk suñu bopp mën nañu tourner kilifa jóge Sénégal mu ngi taw la ci jóge n'est-ce pas <laughs> xanaa kay président yaawul bopp ba xam ne euh, bés boobu ñetti nit dinañ la xaw ma ñaar nga dem Màkk ñaanal Sénégal ñaanal sa bopp n'est-ce pas na la dem Pays-Bas pour conférence bi nga xam ne dañ ko programmé woon nu ko woon dindi hmm. nga jël journal def à jël président adi ko ngañ lu tax teel dellu si woo parce que am na ñu dégg état on gère comme ça l' état état demeewul noonu plan Orsec am na ministre de l' intérieur sapeur euh, pompier système bi yëpp mi ngi rôle mi ngi jokk ñoom ba jaale ñi ñu war a jaale ba massaw nit ñi loolu rek waroon nañu waroon nañu ko remercier sax au moins mais ñooñu ko carrément tu vas voir c'est la liberté d'expression et la et la démocratie à la sénégalaise où on dit ce qu'on veut où une partie dit ce qu'elle veut du moins une partie parce que doo ñu dégg mu bi ñu toogee ba léegi dégguma fi ma nga parce que je pense que politique bi ñun ñëpp politique bi pour defar la kenn def fi politique pour yàq je crois. suñu politique bi ñuy def. defar la ah je ne pense pas que yow da ngay def sa politique euh, au niveau du journal pour yàq c'est pour être informé ou que nous soyons c'est ça le slogan. Mm-hmm. voilà donc ça c'est important que ñu xam ni ñun ñëpp defar moo ñu fi tax a jóg donc euh, yàq bi jaru ko fi. Mm-hmm. yàq der di fi ñaan ñu ñaan yooyu jaru ko fi. Mm-hmm. te li ma wax rek kenn ëppale wu fi kenn. ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk. monsieur bu nekkee lay jaajëfal. waaw buuna koyta la tamit. koyta Seydou <laughs> Koyta di. li ma bëggoon wax tamit euh, sànq. mooy dama ne euh, président dañ koy gërëm ko sant di ko massaw coono bi métti na parce que moom li muy dégg te du tontu parce que du te ah, mooy njiit nag seen mooy njiit loolu moo tax ma ne la njiit bu baax xam nga njiit njiit bo njiit xam nga lan su la waxee mu xelal la su la yeddee mu baax ci te sa wax du toj du taal dëkk loolu mooy njiit. Macky Sall njiit la doo ko dégg fu muy waxee di ngañ fu muy waxee di taal dëkk fi mu waxee di wàññi. waaw ah, bu dee nag bu dee jëf yi bu dee du wax te di jëf nag <laughs> du wax mais dina jëf loo xam ne. mais pour mais pour man li Macky jëf priorité yi may wax sànq dafa baax da ngeen ma ne kay dañu yokk ci priorité yeneen ak yeneen te am na loo xam ne waxuma ko fi parce que man tamit xaw ma lépp am na loo xam ne mi ngi koy def mi ngi koy def temps yeneen mi ngi ñu ngi naan Macky. Euh, généreux day faj ñu feebar yóbbu leen ñu ñu ñu ñu faju ji à l'étranger n'est-ce pas loolu temps yi wax nañ ko fi ci ci ci réseau yi ba kenn sax nga ñu ko nekk soo defaroon sa hôpital yi sa hôpitaux yi doo doo jaruloon nga yóbbu leen ñuy faju seetal kooku tamit seetal ma loolu rek waaw sa ordinateur dafa paan ma dem réparé ko kol euh, Kolda yow nga ni ma waaw neex na trop waaye soo defaroon réparateur yow bu baax kooku yàq na wax ji te pourtant mi ngi faj Euh, le droit de Macky Sall c'est un humain c'est un il est sensible à la cause waaw donc su heure bi jotee koy def mais moo tax ma ne la 17 points yi may wax bi mhm. am na loo xam ne xaw ma ko am na loo xam ne xam naa ko mais waxuma ko mais ne rek ne yokk na yokk ne ce pas d'accord nga ci loolu na yokk neel na yokk na yokk merci baax na <laughs> ñu ngi lay ne kon euh, monsieur Bouna Koita lañ doon dalal responsable politique APR la nekk maire sortant bu Diallambaré fële ca Kolda mhm. nekkit membre bu élan des maires sortants de Benno Bokk Yaakaar ñu koy jaajëfal di jaajëfalaat bu baax kon bokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk suñu différentes plateformes yi kon di leen jox dig rek lu yàggul dara ak beneen